jërë ngeen jëf ci teewlu bi mbokk internet yu 5M TV Sénégal oustaz Modou Fall amaloon fa ab gàmmu kon doon waaraate ñeel kon rekk ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa moom nag waaraatekat bi sax yëkkati na ay kàddu ñeel kon soxnaam ma fa toogoon daal di koy rek xamal askan wa fa nekkoon atax na sax nag mu yëkkati ay kàddu seede ñeel kon ci soxnaam bi Euh, ca nag na nga xam ni noonu lay defee mbir mi ak itamit rek yenn kàddu yi nga xam ni dina ko wax jagleel ko jigéen ñi euh, mu nuy loolee nag dañuy wax rek amaana xëy na jamono noonu la tëddee waaye nekkul lañu jàpp ni kon loolu la mën a nekk tax na kàddu yooyee sax nag jigéen ñi ñoom itam rafetlu ko bu baax a baax ak hommage bi nga xam ne rek daal dina koy jagleel euh, soxnaam mi teewee woon mbir mi nekkoon foofu kon euh, ca guddi ga ñeel kon événement bi nga xam ni rek ñoo ngi ko doon amal ci dëkk bu sell ba euh, di rek màggal juddu yonent bi salallaahu alayhi wa salaam. mu mel ni defkatu ñaawte fii ñu seen tànk benn yoon nag bile yoon rek ñu dem ci biir nag réew mi ci dimanche bi la mbir mi xewee ci suba si élément yoo xam ni rek dañoo muuru kon ah, ba daj rek daal di yore ay gànnaay ñoom la ñu gis nag ñu dugg foofee ca Mandankolé ah, ca commune bu Kosanto département Saraya yàlla amee ñoom nag dañoo daal di rek jël takku ba dëgër ñeel kon rek woto yenu yore woon ak ay moto la ñu doon def rek mooy askan wa fa nekkoon kon takk leen ba ñu dëgër ah, daal di leen rek xoqatal tax na ñu jël ca ñoom lu toll ci fukki million ci suñuy koppar ñenn ñi nga xam ni bañoon nañu joxe koppar ya ñu yore woon jot nañ leen gaañ gaañ yu metti ginnaaw gi nag ca la ñu daw rek dem song frontière bu Mali élément nag yu gendarmerie ñoo ñu ko xamal ñeel kon ñoom ba ñu yéexee ñëw rek ngir jàppale askan wi foofee ca santo ginnaaw gi ñu ni kon rek sonn nañu ci njàkkum karangi gi nga xam ni nekkee nañu ko la ñuy sàkku mooy ñu may leen nag ñu dimbali leen itam rek ci karangi gi ndax nag metti na loolu fi mu nekk nii lañuy ñuy ndax nag mënatuñu génn benn ndax euh, waaye ñawteef ya fa nekk euh, fees fa dell ca gox ba tax na kon ñuy sàkku fi mu nekk ni sax kon armée bi ñëw fa euh, bu ko defee rek gën a jàppale gendarmerie bi nga xam ni gis nañu wàññeeku na bu baax a baax te loolee la wi sàkku bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi di waa Seneweb